Daouda ministre de l'intérieur dafa euh, génne benn arrêté di fixer maanaam membre d'électeurs yi nga xam ni ñoom ñoo war a soutenir euh, entité bu indépendante ci euh, ville bu nekk est-ce que mën nga ñu wax déjà lan moo nekk ci arrêté boobu. waaw jërëjëf dafa jëlal benn arrêté le ministre de l'intérieur muy Antoine Félix Diome. Mhm. benn arrêté bu nga xamante ne dafay fixer nombre bi nga xamante ne moom la ñuy laaj. Euh, pour ñi nga xamante ne ay candidats indépendants lañ. Mm-hmm. loolu nag boo ko xoolee day day c'est en application du du code électoral. parce que boo xoolee code électoral dañ ko soppi ci mois de juillet bi passé. avant loolu dafa amoon benn loi bu nga xamante moo nekkoon loi sur le parrainage. bu nga xamante ne dafa dafa ay condition yu nga xamante ne que mu nekk parti politique yi que mu nekk candidat indépendant yi am na ñu leen doon laaj pour ko ñu mën a bokk ci élection locale. xoolee ci loi parrainage bi nga xamante dañ ko doon ŋàññi sax dañ ne woon pour que nga mën a déposer. candidature que mu nekk ci commune que mu nekk ci département bi que mu nekk ci ville bi mhm. il faut que nga regrouper ay électeurs yi nga xamante ñoo inscrire foofu mhm. euh, bu tolloo ci un pour cent un pour cent minimum mhm. wala un pour cent un cinq pour cent maximum ci bu fekkee ne commune la ci électeurs yi nekk ci commune bi bu fekkee ne ville bi la ci électeurs yi nekk ci ville bi bu fekkee ne département la ci électeurs yi nekk ci département bi mais loolu nag dañ ko soppi ci mois de juillet parti politique yi kenn tegatu leen loolu mais mhm. candidat indépendant yi dafa am lu ñu leen teg li ñu leen teg moo di su fekkee ne ci département bi la mhm. wala mu nekk ci commune bi wala mu nekk ci ville bi il faut nga regrouper 2 pour cent ñi nga xamante ne ñoom ñoo inscrire ci gox boobu mhm. donc bu dee commune bi la 2 pour cent ñi nga xam ñoo inscrire ci commune bi la su fekkee ne département bi 2 pour cent ñi nga xamante ñoo inscrire ci département bi su fekkee ni ville bi la 2 euh, pour cent ñi nga xamante ñoo inscrire ci ville boobu mais dañ ne bu fekkee ni département bi la wala ville bi il faut que 2 pour cent yooyu nga xamante ne yaa ngi koy collecté 1 pour cent bi minimum 1 pour cent ci 2 pour cent boobu dafa war a nekk minimum ci moitié commune yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu léegi nag loi bi waxoon ne. le le le ministre de dafay def benn arrêté bu nga xamante ne moom mooy fixé exactement nombre bi nga xamante ne moom la ñuy laaj tey jii boo xoolee arrêté bi dafa fixé exactement nombre bi parce que bu ñu defee révision électorale ba pare xam nañ exactement léegi ni ñan mooy nombre électeur ci Sénégal yëpp donc tey jii boo xoolee ci ville yi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal ñeenti ville lañ euh, dakaar la euh, Pikine euh, Guédiawaye non non Dakar Guédiawaye waaw Dakar Guédiawaye Thiès mm-hmm. ak ak ak Pikine voilà voilà moom mooy moom moom mooy moom mooy ñeent yi léegi boo xoolee bu bu appliqué woo loolu dane tey jii bu ñu inscrire bu ñu xoolee par exemple 2 pour cent ñi nga xamante ñoom ñooy inscrire ci ville de Dakar ñu ngi nekk 13 500 et poussière boo xoolee commune d' arrondissement yi nga xamante moo nekk ci Dakar 19 lañ donc bu fekkee ni 19 lañ loi bi def ne bu fekkee ni nombre impair la dañ ciy yokk benn unité pour que mu nekk mu nekk pair Mm-hmm. donc 19 boo ci yokkee benn day nekk 20. donc booy collecté 2 pour 2 pour cent yi. yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy collecté 13 13 virgule 13 13 500 nangam mooy deux pour cent yi. Mm-hmm. mais ci 2 pour cent yooyu da nga war a am 1 pour cent bu nga xamante ne mu ngi jóge ci moitié commune yi donc moitié commune yi dis lay doon. Mm-hmm. comprends nga fi may waxee. donc yow yaa ngi euh, commune nu mu tee 2 pour cent. électeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ville de Dakar treize mille cinq cent et poussière la léegi ñu ni ci deux pour cent yooyu da ci war a am un pour cent minimum bu nga xam ne dafay jóge ci dix commune au mois la moitié des communes comme dix neuf communes d' la nga yokk ci benn commune mu nekk vingt boo ko diviser par day nekk dix mm-hmm. léegi nag si ki fekk que yow tey tey tey bu fekkee ne man candidat indépendant la bu nga xamante ne maa ngi bëgg pour bokk ci élection bu nga xamante ne ville de Dakar la mm-hmm. su fekkee ne dama bëgg bokk dama il faut que ma am treize mille cinq cent poussière ñoo xamante ne ñoom ñoo ma pare na ci commune boobu mais treize mille cinq cent yooyu au moins un pour cent bi maa ngi ko war a jëlee ci dix communes maanaam war naa am cent trente six bu nga xamante ne mm. dama koy jëlee au moins ci dix communes yu nga xamante ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ci Dakar ah, loolu mooy arrêté bi nga xamante ne moom la ministre ah, ah, ah Cheikh Tidiane Balma euh, lan moo tax ñu jël autant de mesures tegleel ko euh, euh, candidat waaw xam nga xam nga tey bu fekkee ne bu tey boo gisee sax dañ ko durcir parce que xam nga fële dañ doon wax ni par exemple 1 pour cent wala 1 virgule 5 léegi fi mu toll nii yokk nañu ba 2 pour cent euh, loolu noonu boo ko boo ko gisee dañuy bañ rek que que peut-être pëccoo koo am. ku jóg rek daal di daal di ñëw mën a nekk mën a mën nekk candidat parce que élection quand dañ koy encadrer. boo ko encadré wul tey man mun naa ñëw déposer sama candidature keneen ñëw euh, déposer candidature day dem ba benn moment bu nga xamante ne euh, même organisation élection boobu dafay dafay dafay am dafay am problème parce que administration territoriale ñoom ñooy organiser élection yi mais tey jii loolu noonu dafay soxla koom da soxla ay bulletins yu nga xamante da koy édité mm-hmm. da soxla ay forces de sécurité de défense de sécurité yu nga xamante da nga leen disséminer un peu partout mm-hmm. da mobiliser magistrature bi pour que décompte bi ak résultat provisoire yi mm-hmm. donc loolu yëpp il faut organisation bu nga xamante en amont euh, état du Sénégal war na ko mun maîtriser mais pour nag il faut des garde-fous garde-fous yi mooy lan ku ci nekk rek du jóg rek mën a mën a participer les sens tey jii même boo xoolee par exemple en dehors de loolu nga xam def nañ ko mhm. caution bi également dafay ñëw participer à cela mhm. Mhm. tey jii boo xoolee caution bi ñëpp ñu ngi koy ŋaañi def nañ ko caution de quinze pour de de quinze millions mais quinze millions boobu yëpp tout simplement pour encadrement bi la mais est-ce loolu sax man foofu laa bëggoon ñoo seeti Diane est-ce que tamit du bëgg exclure ñoo xam ne peut-être amoon nañu projet te euh, seen euh, kattan àggul foofu ndax bu ñu waxee caution ñu ne bëri na tey ñu leen laajaat ay mbir yoo xam ne est tamit loolu mu nasaxal tuuti wàllum démocratie parce que da gis koo xam ne amaana am na ambition mais li ñu koy laaj ñi matale wu ko. waaw man da d'accord boo ko xoolee ci benn sens bi di nga wax ni par exemple dafay dafay nasaxal un peu démocratie parce que nit peut-être am na ay idées. Mhm. mais amul koom bu nga xamante ne moom moo koy permettre. mu jël au moins nekk au service de la de la de la société. Mhm. c'est vrai que boo ko xoolee foofu quand même mën nañ ko xalaate noonu. Euh, mais nag démocratie également dafa am ay exigence am dafa am lu nga xamante ne comme ni ma la ko waxee léegi euh, encadrement bu nga xamante ne dañ ko war def parce que bon euh, démocratie na veut pas dire par exemple que ubbi van yëpp ba ku ci nekk mën a mën a mën a def lu ko neex entre guillemets je me dis ñi nga xamante ne am nañ projet yooyu te les candidats indépendant dañuy joxe list bu ñu joxee liste boobu par exemple man su ma amee idée yow nga am idée Cheikh am idée am idée ñun mën nañ lëkkaloo par exemple ñun ñëpp ñu bokkandoo bokk benn liste bu nga xamante ne ku ci nekk ak sa tuut boo ko indee ñu mën a regrouper la caution boobu nga xam ne moom ngay bëgg li bon mooy échappé solitaire cest à man je ma ñëw ma ne par exemple man kat am na ay idée et que man nekk naa nit ku nga xamante ne genre benn miss la bu nga xamante ne mun naa régler les problèmes des sénégalais et par conséquent damay dem booba nag su fekkee ni am naa idée yi te aw ma combat également je pense que am na benn benn benn obstacle bu nga xamante ne euh, nekk sama kanam problème bi mooy euh, c'est vrai régulation baax na ci pour pëccoxoo bañ a am hmm. mais euh, yëf yi dafa mel dafa am deux poids deux mesures ci diggante ñaari doomu sénégalais hmm. parce que c'est pas parce que yow danga nga dem créer parti politique rek que absurde nañ la ci yenn yi hmm. alors que ñoom ñëpp bokk te déjà ci parti politique yi rek euh, nit ñi ñu ngi wax ni déjà foofu dafa bari te régulation boobu amu fa. waaw ah non mais d'accord d'accord d'accord naa ak yow parce que tey ji tey jii boo xoolee ñun suñu parti suñu parti politique yi ni ñuy créer ni ñuy créer parti politique da ngay ñëw rek nga crée benn da ngay gis parti politique bu nga xamante ñaar ni ñett ñun ñoom ñoo fa nekk. Mm-hmm. ak dès l'instant nga créer benn parti politique dem uti dem uti nu mu yi ñu teg. pour que parti politique bi mën a mën a dox normalement amul kenn ku ko ku ko ko respecté même contrôle bi nga xamante ne l'intérieur war na koo def en ce qui concerne les partis politiques réellement defuñu ko parce politique am y loi qui concerne les partis politiques y un certain nombre d'exigences yu nga xamante ne dañ ko war def et je pense que loolu bu ko defoon tey tey tey duñ fi retrouver wu avec plus de trois cent voire quatre cent sur les partis politiques ba nga xamante ne du ko jóg rek mën ko def. Mhm. mais tey jii boo xoolee pratiquement partis politiques yi ñoom ñoo nekk ñu nga xamante ne ñoom ñoo ëpp làmmiñ nañ ma baal ci li may wax. parce mhm. que tey jii ba ñu fa defee loi sur le sur pare parrainage ñoom ñoo jógoon di ko ŋàññi naan c'est pas c'est pas normal parce que parti yu mag yi dañuy dañuy bundu xatal ñi nga xamante ne ñooy parti yu ndaw yi. de la même manière également indépendants yi mën nañu toog ni ñoom tamit parti politique dañ leen ëpp doole mhm. dañ leen ëpp làmmiñ ëpp dañ leen ëpp nu mu tuddee représentation pour mun def yenn yi mhm. tey jii boo demee assemblée ñooy voté loi yi c'est des partis politiques mhm. indépendants yi nekk fa par exemple pour voté loi yi loi électorale bi bañ koy chang changé indépendant nekk fa par exemple pour défendre ko c'est les partis politiques ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo défendre loolu pour que mu jàll donc man pour man effectivement c'est vrai que nañ def ay garde-fou pour éviter am mais il faut également que qu'on soit regardant sur lu nga xamante dañ koy def mu bañ a nekk lu nga xamante ay kumba sàmba kumba am ndey ak kumba am mais soo xoolee xam nga euh, ñu bari dañu jàpp ne politique yi dañoo prendre en notage mm. te lii tamit loolu lay nduru parce que mm. yaa ngi wax euh, assemblée nationale assemblée nationale boobu sax soo seetloo am na député bu fa nekk boo xamee ni euh, su la bannière euh, indépendant la fa nekkee muy euh, je pense Théodore Monté te ñëpp jamono yi dañuy faral di rafetlu ay prise de position yu muy def te moom sax mës na ñëw ci plateau bi di encourager initiative yooyu que nit ñi dañoo war a jóg ñoom tamit di militer maanaam seen citoyenneté di dem di réclamer suffrage Euh, sénégalais yi. Mhm. même sans bañ a bokk ci euh, nu mu tuddati ci ci benn appartenance euh, politique. Mhm. mais tamit suñu gisee politicien di doxalee nii day mel ni tamit ñaari Sénégal moo fi nekk. wax mhm. dëgg fa yàlla. te te te te fair bi newul ñoom ñoo ko yor. mais li nga li nga li nga li nga waaw ñoom boo xoolee par exemple suñu sunu sunu code électoral doole bi mu jox parti politique bi la. donc suñ suñu politique publique yëpp pratiquement parti politique yi ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk en avant mm-hmm. tey jii dañuy gis ne même su fekkee ne bëgg nga sax yegg bi yenn fonction yenn il faut nga mm-hmm. militer politiquement on a vu des fonctionnaires yu nga xamante ne dañu xarañ ci seen domaine que mu nekk ay professeur que mu mm-hmm. nekk ay magistrat que mu nekk ay lenn yu nga xamante fañ nekk am nañ xarañteef mais jàpp nañu par exemple seen ascension donc politique dafay dem ba benn moment bu nga xamante ne dafay nekk benn ascendance sociale bu nga xamante escalier social bu nga xam ne da nga koy utiliser pour mun yegg fenn fi pour que sax sa kàddu mën a jib fenn fi pour que ñu koy prendre en compte effectivement je suis d'accord avec toi que les partis politiques disons les hommes politiques ont pris les Sénégalais en otage et que tey tey tey tey tey mu nekk loi yëpp yi nga xam ne da nga ko fiy teg mu nekk code électoral bi dafa may doole parti politique bi doole bu nga xamante ne tey ji tey ji amaana pour véritablement indépendant ki nga xamante ne candidat indépendant mën a gis boppam ci li nga xamante ne moom la moom la réew miy doxe ça va être très très très très, très difficile il faut que mentalité yi mun changer bu mentalité yi mun changer euh, nu mu tuddee sénégalais ñoom seen bopp ñu commencé gëm li nga xamante moom mooy indépendant parce que sénégalais xamaguñu véritablement sax lan mooy indépendant gëmuñu gëmuñu ko ñoom parti politique la ñu xam man euh, Macky Sall la àndal man ab Wade la àndal man Kële la àndal mais par exemple tey tey tey tey tey Diaw ñëw par am un projet ñëw taxaw ñu ne kii kat c'est quelqu'un bu nga xam ne am na xam-xam bi am na am mën na yeggale Sénégal benn niveau bi pour ñu koy gëm du du yomb mhm. il faut que moom mu dem euh, na laay kase créer ay structure daal di dem def ay fédération ay congrès ay nangam ak nangam dem def euh, benn propagande benn pour que ñu mën a déglu ko sax moom mhm. donc man je me dis effectivement comme ni nga ko waxee un Théodore Monteil c'est quelqu'un bu nga xam même bu lay wax ci code électoral da nga xamante ki xam na lu muy wax mhm. bariwul ñu nga xamante ne ñu ngi foofu ci parti politique assemblée nationale sa texte yi nga xamante ne ñu ngi koy voté mhm. alors que moom bu la jëlalee par exemple code électoral daf lay wax ne lii moo fi nekkoon lii moo ci soppi mhm. lii moo fi nekkoon lii moo ci soppi yaakaar na ne lii dañ koo bëgg a voté mais nekkul lu nga xamante ne moom moo gën mhm. je pense que profil yooyu soxla nañ ko te tey jii boo xoolee Sénégal wax dëgg fa yàlla je pense que ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp xam-xam. nekk ñu ci parti politique yi. très bien mm-hmm. ah, aywa lan mooy enjeu yi euh, euh, ci réforme yu ni mel surtout bërëb yi nga xam ne c'est des zones à forte densité démographique. waaw man je pense que je pense que enjeu bi mooy déjà élection locale bi il faut que ñi nga xamante ne ñoom ñooy candidats indépendants yi ñoom seen bopp ñu mën a regrouper wu pour renverser un tout petit peu la tendance parce que tey jii loo mën di wax tamit code électoral bi. Euh, am na ay prox ndoll yu nga xamante ne créé na ko xam nga bu njëkk da ngay gis par exemple code électoral euh, élection maire bi euh, kii la woon suffrage universel indirect la woon tey jii yow da ngay ñëw nga nekk indépendant nga ñëw ñafe-ñafe-ñafe ba nekk conseiller municipal mais bu ngeen ñëppam les conseillers municipaux ñoom ñoo doon regroupé wu daal di ñëw pour élire maire bi foofu noonu daa gis par exemple sax achat de conscience comme nañ ko daan waxee di ngeen ñëw par exemple waa PDS ëpp ëpp doole peut-être ñëw ci yeneen conseil waxtaan ak ñoom promettre un certain nombre de choses mm-hmm. ñu voté ki nga xamante ne en principe il devait pas être maire parce qu'il n'avait pas les aptitudes pour le faire mais tey jii boo xoolee code électoral bu bees bi c'est le suffrage universel direct ça veut dire que maire bi comme nu ñuy élire président de la république comme nu ñuy élire euh, député bi noonu la ñuy élire maire bi ça veut dire que ñoom ñooy choisir directement kan la ñuy voter pour que mu nekk maire bi je pense que loolu rek nekk na lu nga xamante ne avancé la bu nga xamante ne candidat indépendant yi su fekkee ne regroupé wu nañ ci seen gox ak seen gox goxaat ñu ràññee leen ba nga xamante ne ñii kat seen loxo set na et que mën nañu mën nañ développer seen seen localité ñooñu nooñu bu ñu bu ñu bu ñu sampee seen dënd euh, seen i seen i population mën nañ leen a voter def leen def leen ay maire mais loolu nag il va falloir que ñoom tamit ñu def un bloc xam nga waxtaan ak euh, nan laay ko wax ñi nga xamante ne ñooy seen i ñooñ en masse dans le développement communautaire pour que ñoom ñu mën a nekk ay maire et que ñu mën a changer la donne parce que bu ñu nekkee maire rek je pense que dinañ mën a dinañ a changer un certain nombre de euh, choses. tey jii kon euh, candidat indépendant yi lan moo leen dese dem à la pêche euh, aux signatures waaw je pense que dem à la pêche aux signatures mais je pense que loolu aussi ça doit pas être être être difficile parce que su fekkee ne yow yaa ngi ne comme bu ñu nee par exemple département de de de de de na laa koy wax sax bu ñu de Dakar. ville de Dakar 19 communes d'arrondissement la donc boo jógee par exemple Dakar ba Parcelles Assainies ñoom ñëpp ñoo les 13000 13000 voix nga fa nga fa nga fa nga fa war a am pour que nga am ko ça doit pas être si difficile que ça pour man à seen bopp ngeen lëkkaloo xam nga comme ni ma ko waxee tey ji su fekkee man parcelle laa dëkk am un candidat indépendant bu nga xam mi ngi dëkk Mermoz keneen dëkk Médina keneen dëkk nangam ak naam ñun bu ñu lëkkaloo ku ci nekk par exemple bu utee dara ñun bu ñu ñëwee bu ñu bokkee mën nañu mën nañu au moins am am am dara moi je me dis que actuellement ni autant ni ngay gisee parti politique yi gëmatuñu échappé solitaire ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gëm ay coalition tey même boo xoolee euh, Benno Bokk Yaakaar coalition la boo gisee opposition ñoom ñu ngi coalition même les partis politiques gëm nañ ne échappé solitaire amatul il faut que ñu def coalition autant nag indépendant yi également noonu la ñu war a def ñoom tamit pour au moins mën a jàmmaaloo ñi nga xamante ñoom ñooy parti politique pour au moins ñoom tamit seen idée ñu mun koo ñu mun koo wax au moins également li ñu yaakaar ne mën nañ ko def pour askan wi ñu mun ko def convenable. te kiy parrainé tamit amul droit parrainé euh, maanaam plusieurs. <laughs> waaw waaw waaw loolu aussi moom la moom la code électoral wax. booy parrainé benn benn nit nga mën a nga mën a. parrainé mais coow loolu gisoon ko fi de naka la ñuy def ba réguler loolu. parrainé fii parrainé waaw mais ñu ci bëri boo gisee ci parenage ba le li leen exclure woon loolu la parce que ki nga xamante moom lay moom mooy njëkk a déposé kooku lu ñu jël en compte par tey jii man su fekkee ni man yow parrainel nga ma parrainel nga sëñ bi parrainel kii man bu ma njëkkee déposé rek moom la ñu jël en compte daaw dana ko ma la ko loolu ah, bu xante bu am solo moo fa amoon pour njëkk a déposé voilà donc mm. donc loolu la donc je me je me dis que booy dem bay ut ku lay parrainer également il faut nga nga xool bu baax voilà il faut que nga def euh, na laa koy waxee un il faut le tri nga mun ko def et que ñi lay parrainer mu nekk ñoo xamante ñoo ñoo wóolu la mu wóor la ni du ñu yàq sa candidature parce que sinon rek boo demee parce que euh, conseil constitutionnel ñoom bu retrouve bu jëlee candidature ba pare ñoom amuñu amuñu amuñu technicité bi donc direction de l'automatisation du fichier foofu la ñuy foofu la ñuy saytoo affaire yi donc techniciens yi foofu la nekk il faut que ñu xool ne effectivement ndax Daouda Mine mi nga xamante ne moom moo parrainer électeur la effectivement est-ce que moom si boppam mu ngi inscrire par exemple ci commune bi nga xamante ne foofu laa bëgg ku ma parrainer donc loolu vérification yi dafay am mm. donc ce qui fait tey tey tey tey ci collecte ba il va mm. falloir que ñu xool ko bu baax moi j'ai vu des gens yu nga xamante ne dañuy ñëw jël seen carte d'identité joxe ñu parrainel ma Samba parrainel ma dem parrainel ma dem parce que am na yenn parti politique wala ñu nga xamante ne dañuy joxe peut-être 5000 wala benn 10 000 bu nga xamante ne koy def donc pour collecter le maximum de fonds mhm. xam nga da ngay ñëw joxe fii jël fii 10 000 jël fii 10 000 jël fii 10 000 donc mhm. yooyu yëpp nag dafa nekk lu nga xamante ne yow mi ut euh, parrain yi nga xamante ne ñoom ñoo la ko il faut nga xool ko surtout nag les candidats indépendants mhm. voilà surtout ñoom voilà mais loolu moom lu ci diine wax bu fekkee da nga ko tey jox kenn ku ne nga jox ko sa kàddu xanaa tere ko mm-hmm. ndax loolu euh, dafa bokk ci doxalin yu pratique yoo xam ne mm-hmm. diine nangu ko mm-hmm. diine dëggu la bëgg benn carte nga am jox ko kii waaye jox ko Masamba ma Demba jox ko Fatou jox ko kooku corruption la. corruption mhm. te l'islam bokk na ci li mu gën a bañ. Mhm. mooy corruption. waaw hmm. c'est valable également pour ñi lay dig ay robinet maa yooyu bu ñu faloo nga gëj leen a gis. <laughs> Ah, <laughs> mu lay wax noonu comme ni mu la koy wax corruption tey jii boo jëlee même code électoral bi. Ah. dafa prévoir ay sanctions par exemple ci kuy def loolu. Mhm. mais est-ce que mës nañoo gis ku ñu sanctionné ci loolu. mais ki ki corrompre waate nag. non xam nga xam nga corruption ñaar la. dafa am corruption active ak corruption passive. Ah. cest à ki nga xamante ne dafay corrompre ak ki nga xam dañuy corrompre yëpp ñoom ñoo bokk àtte ci devant la loi man mi nga xamante même ci l'islam aussi <laughs> ñoom ñaar ak ah, ah, àggaleel ah. waaw ñëwal waaw dama ne même bu dee ci l'islam tamit mhm. ki nga xam ne euh, moom mooy corrompre mhm. ak ki nangu ñoo corrompre mhm. ñoom ñaar ñëpp l'islam dafa wax ñoom seen dëkkuwaay mooy safara suñu mbokk yi politiciens yi mm-hmm. uti carte mm-hmm. ak ñiy joxe seen carte yi joxe mm-hmm. seen kaddu ñu bàyyi xel jiital diine jiital ngor daf ci am solo waaw fi mu ne nii moom bu élection yi jubee xeetu promesse bu ne di ko dégg ah, daaw ah, ah. su jàllee gi jàllee ñu ñu dem ci yeneen combat justement loolu nga par exemple tey jii di nga gis par exemple quelqu'un bu nga xamante ne dafa war a ñëw pour briguer une mairie di la promettre lu nga xamante ne ci domaine de compétence c'est ça <laughs> nekkul de compétence soo jëlee code des collectivités locales dafa am dafa am dafa am ay compétences yu nga xam c'est des compétences transférées c'est des compétences yu nga xam état moom moo ko moomoon mhm. mu jël transféré ko ñu nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy collectivité territoriale 19 19 19 compétences transférées la mhm. mais tey jii di nga gis kenn ko xamante ne leer na ko ne li muy moom mënu ko gérer. li mu bëgg rek mooy nga jël def ko maire boo ko defee maire ba pare da ngay dégg sa discours am dafay changé da ngay ñëw ne quoi ah, lii kat yaa ko mu ne noonu li état moom moo ko war def. et pourtant et pourtant yow ba ngay briguer. Mm. waxoo woon ni lii kat man mënuma ko état moom moo ko war def. Mm. da nga ne rek bu ngeen ma kiiyee naa leen defal tali fii. Mm. naa leen defal lycée fii naa leen defal lële naa leen defal benn amoo compétence bi ñaar amoo com bi ko war def parce que investissement bi muy laaj yow c'est recette communale mm-hmm. xam nga wala c'est recette recette départementale mënu la ko mënu mënu mënu la ko mm-hmm. léeg-léeg nga dénk nga dénk kenn micro mu ne diw ba mu nekkee ba mu ut maire bi dañu woon bu amee bu faree ñun ñëpp danañu utal liggéey voilà alors que ñi mu sax nañu utal liggéey amaana sax qualification bi ci war amul donc mu am ay préalable luñ jiitu yoo xam ne loolu mm. yëpp dañ ci war a bàyyi xel merci beaucoup Daouda c'était une façon euh, d'introduire sunu invité boroom xam-xam la bu ñëpp sopp professeur Jim Dramé chercheur la ci IFAN léegi-léegi dañ koy dalal aywa euh, Cheikh Tidiane ci njalbeen gi maa ngi naan leen euh, bés bi euh, dayoo bi